je reste persuadé que sa yaay fou mënta nek sa loxo papa djogu ci Souleymane est responsable de la disparition de Binta. loo rend say loxo lay natch ta djegiro djom waa yow lu ma dégg di wax ak yow ni. xam. taa Nicole dama bëggon tay ñu waxtaan. lu xew ma jàmm. jam le du jam heureusement sax bu fi tonton waji bax mi toge problème mu Rocky Daba mom la lay wax. Ah, ki nek may ma ñaari paracetamol way Penda lu ko dal sama ginnaw souleyman man li ngay wax ni man xawma ci dara bu fekke dafa am lo yek te yeguma ko nga wax ma. da loolu sama yon nek ci mais damay dam wax ko Souleymane. man ngay mbéj ñu ma lay ray nga na ma dag may mbéj.